journal bi di réew mi quotidien ci xëlim ak Assane Samb nee na moom la Macky Sall di dund maara day tale ndax Macky dina sedde ci pression bi nga xam ne ay jege ñaaleem ñoo ko koy tekk bi nga xam ne opposition bi ñoo ngi ko société civile bi ci jëm ci wàllum ñetteelu candidature yéen kaay gi nee na nag bu ngeen fi gisee ak kuréel koo xam ne ay taskatu xabaar ñoo fa nekk di xeex lépp xam ne jëm na ci wàllum ñetteelu candidature maanaam bu mu leen bett mbir mi nag du yomb benn yoon ci

ci réew mi yéen kaay wax ci rapport cour des comptes bi nga xam ne génn nañu ko ci lu jëm ci xaalis bi nga xam ne moom la ñu jagleeloon jëm ci wàllum coronavirus journal bi nag nee na ñi nga xam ne ñooy journalistes yi dañoo dajee ak Ismaïla Madior Fall mi nga xam ne moom lañ dénk wàllum yoon ci réew mi na ko waa Ismaïla Madior Fall monsieur le ministre rapport bi nga xam ne génn na te nag ay ministres yu bare bare yoo xam ne joxar bi nañ leen wa bañ see tontu yéen a kaay gi dee enquête nee xam nga ne démb la ñu doon amal conférence des chefs de parquet maanaam procureur yi waaye nag ñi nga xam ne tamit ñooy yi wax nañu jafe-jafe yi nga xam ne justice bi amee na ko ci réew mi journaliste yi daal li ñu bëggoon démb ko ci Ismaïla Madior ndax nee nañu ko Ismaïla bi moom loo wax wax waaye dafa lànk bañ cee wax yéen a kaay gi di réew mi ko di cee xëy duñu xibaar naan ñu Guy Marius Sagna ak Aminata Touré ñoom nag saisir nañ assemblée nationale maanaam question d'actualité nee ma question orale jamono ji nag la ñuy sàkk mooy gouvernement bu Sénégal ñëw ci assemblée nationale ñu indi ay leeral ci rapport cour des comptes ak ministre yi nga xam ne joxar bi nañ leen ci baaraamu tuuma yéene kaay gi nag nee na ba nag rapport bi di mujj daal ba rapport bi di mujj bi di mujj si conc Macky gi ñu xëy fekk fa Birahim Seck moom nag nee na jamono ji maanaam bi mënut a ñàkk a ci rapport cour des comptes bi nga xamante ni doy na waar genn xeetu doy waar goo xam ne maara détaillé waaye nag li jaaxal gaay yi li jaaxal gaay yi li jaaxal ba léegi procureur dafa ne pat a yàbbi ci noppi ci lii nga xamante ne askanu Sénégal mbir mi da leen metti ba mara di tale ndax nag sàcc gee rëy yéen kaay gii leen foo xëy di ñu xibaar naan ñu rapport Cour des comptes ñi nga xamante ni ñooy cadre Pastef fii ñoom nag ñoo gi sàkku ay daan yoo xam ne danañu ko jël nag lal ko ci ndoddul ñi nga xam ne ñoo def gile giraawaal yi yéen kaay gii di las nee na Aminata Touré ak Guy Marius ñoom nag li ñuy bëgg jamono ci maanaam gouvernement bu Sénégal ñëw ci assemblée nationale Aminata Touré journal ci gars Aminata Touré ma ngi accéléré jëm ci Ousmane Sonko yéene kaay gi de la Tribune daan xëy ba tey ci lu jëm ci wàllum rapport Cour des comptes bi ma ne bi wane na ne Abdoulaye Diouf Sarr ak Marie Khemesse Ngom ñoom dañu doon gonfler li nga xam ne mooy cas Covid 19 yi maanaam dañu doon yokk cas dañu doon yokk cas grave yi Marie Khemesse Ngom Ndiaye ak Abdoulaye Diouf Sarr journal bi nee na rapport bee ko wane rapport bee ko wane ne Abdoulaye Diouf yokk li nga xam ne mooy cas Covid 19 yi ngir nag tiital askanu Sénégal cas grave yi la doon yokk ngir tiital askanu Sénégal yéen kaay gi di ñu xëy fekk fa ma jëy mbooca moom nag nee na nemmeeku bi daal bi nga xam ne moom la Ousmane Sonko def lan moo tax mu teree nelaw Macky Sall ab laaj la yéen kaay gi di réew mi ko di jenqëy duñu xibaar naan ñu ñaari député yi nga xam ne ñoom la ñu joxar baraamu tuuma ne ñoo dóor Amy Ndiaye ñii bi ci Assemblée nationale di Massata Samb ak Mamadou Niang démb la ñu leen doon atte nag procureur nee ma bi li muy sàkku na jamono kaay gi di Sud Quotidien lii nga xam ne moom la procureur wax moom la procureur bëgg maanaam ñaari atti kaso bu dee nag maanaam attekat yi juge yi fekk si nañ li nga xam ne moom la parquet bi bëgg maanaam député yi moom dañuy ñàkk seen ndombay tànk dañ leen di revoqué yéen kaay gi di Rewmi xëy dañu xibaar naan ñu journaliste Pape Alé Niang ni ki démb nag tegaat nañu ko loxo tegaat nañu ko loxo journal bi nee nag la ñu njort ne moo tax ñu teg ko bi boppam démb moo sàkku ci ñi nga xam ne ñooy waa dikka nga maanaam ñu dem andi Pape Alé Niang tey ji moom journaliste bi dina jàkkaarloo ak juge d'instruction bi waaye nag soo muy tuulee kaso la jëmaat de yéen gi délibération xëy wax ci lu jëm ci wàllum trafic passeport de service yi Xarijatu Tandian mi nga xamante ni mooy cerveau bi moom nag wax na nee na mooy bu njëkk boo xam ne ma ngi def ay njuuj njaaca ci lu jëm ci wàllum fraude trafic passeport de service ñu bi muy a